Euh, ci ci ci waxtaan wi euh, fan yi wala waaw fan yi ñu jot benn bataaxal buy biral ni euh, yow da nga daal di rejoindre ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko. Euh, mu nekk aussi li nga xamante ne certes bett na ñenn ñi ñenn ñi euh, bettu leen lan moo tax nga def li ni mel dangaa mer ngemb ci li ñu euh, invalider sa candidature moo tax ba nga dem rejoindre la coalition Sonko rawatina plateforme boobu nga xamante ne moom la ñuy wax LACOS di les alliés du président Ousmane Sonko. déedéet xam nga ñun li ñu mos wax mooy opposition la nekk. Mm. dañu nekkoon ci nguur gi. mais yow kenn xameewu la ci opposition radicale. waaw mais dama ni d' abord ñun ci opposition la ñu nekk. Mhm. defe naa loolu moom ñëpp nangul nañu ko parce que euh, bu ñu génnee ci nguur gi parce que man maa démissionné kenn génnewu ci nguur. kenn dàqu la. j' étais PCA de mhm. Petrosen te ku xam Petrosen xam na ni PCA c' équivalent à un poste de mhm. ministre. donc j' étais PCA de Petrosen. le 25 juillet 2022 man maa décidé démissionner le 27 juillet man maa woote ni département de Saint-Louis nañu votel euh, coali intercoalition Yewwi Wallu yàlla def parce que bu ma demee ci local yi amoon naa dix mille voix mhm. à Saint-Louis et loolu bu mu ñëwee rax ci seen voix ça a permis de gagner de battre à plat de couture mhm. benn Bokk Yaakaar mhm. depuis lors je suis dans l'opposition donc loolu ñaareel bi mooy suñu programme defe naa ni sooy ñu nekkatuñu candidat parce que invalidé nañu euh, liste pro définitive génn na donc on sait duñu du ñu bokkati on sait que du ñu bokkati amul benn pexe bu mun a am pour nga bokk defe naa ni loolu aussi nit dañ ko war a xam parce que république dafa am yoon yu muy jaare dès que liste provisoire génn kenn mënatul am pexe xanaa pexe bi nguur gi bugg a def mooy euh, supprimer conseil constitutionnel arrêter élection yi mais amul benn pexe donc ñun pour ñu bokk dañuy seet yan parti la ñu niroole programme bu ñu xoolee soo xoolee yoo xam nga ñëw nga fi waxtaan nañ ci suñu programme defe naa parti bi ñu gën a niroole programme mooy ancien parti Pastef ex-Pastef la ñu gën a niroole programme ci lu bare donc loolu déjà benn la ñaareel bi aussi moo di tey société kan moo am doole ci opposition bi pour mun a gagner élection yi parce que dañu bëgg nguur gi jóge fi Sénégalais yépp loolu la ñu soxla donc il faut ñoom ñëw jàppale ki nga xam ni am na doole pour gagner te aujourd'hui tey ci opposition bi ki am doole pour gagner mooy candidat bi nga xam ne Ousmane Sonko moom lay jàppale. mais Ousmane Sonko moom jëlugul benn position parce que joxoñugul kenn ne kii mooy sama candidat. waaw mais xam nga euh, euh, ci lay ñëw xam nga Ousmane Sonko dafa créer benn coalition bu tudd LACOS. Mhm. yaa ko tudd. Mhm. mooy leader ak allié. allié yi ñi ànd ak moom. Mhm, coalition bi. ci coalition boobu am na ñetti candidat. yoo xam ne jàll nañu sànq wax naa la bokk na ci li naqari nguur gi ci conseil constitutionnel le fait que candidat yooyu jàll donc ñun dañu ni dañuy ñëw bokk ci coalition boobu ñu nit as tuuti nit yu ñu am ci Sénégal yépp ak diaspora bi ñu indi ko versé ko ci coalition bi mais nag suñu partie day des mhm. ñun ñëwuñu seey dañu ñëw bokk ci coalition bi ak suñu parti. mais jàppoo ni ci côté boobu noonu dogguma la sax mais boo demee ba rejoindre boobu la coalition day rey complètement ou bien carrément sa parti. déedéet du ko rey. Mm. Euh, du ko rey suñu partie mu ngi développé macha allah te ñu continuer di ko développé parce que dañu dafa am lu tax bokk demuñu euh, seey parce que am nañu aussi suñu spécificité. Euh, suñu ak suñu spécificité surtout ñun ambition bi ci réew mi lañ ko teg. Mm-hmm. moo tax amuñu benn problème pour dem soutenir nit amuñ ci égo amuñu dara réew mi moo am solo ñaareel bi aussi ñu seet ni ci ci coalition bi li ci am doole mooy Ousmane Sonko tey su nekkoon candidat kenn du ko laam mais moom su xoolee ni diw moo ma doy doy diw boobu defe naa ñëpp dañ koy seetee Ousmane Sonko te incha allah day gagné était gagné même dès le premier tour donc moo tax ñu ni benn euh, ñun suñu parti ñëw nañu bokk ci LACOS mooy coalition Ousmane Sonko bi ñaareel bi bés bi Ousmane Sonko ne diw mooy nekk suñu candidat diw boobu aussi mooy nekk suñu candidat mmh. donc moom la ñuy jàppale mmh. euh, euh, professeur fan nga teg sànq ba tey maa ngi lay dégg ngeen ne Ousmane Sonko candidat moom mooy gagné élection yi euh, fan nga ko teg parce que yéen à chaque fois l'opposition di ngeen a minimiser euh, carrément la candidature de Amadou Ba fan nga teg ni euh, Bassirou jomaay fay mën naa gagné élection yi wala candidat bi nga xamante ni Ousmane Sonko moom la fas yéene joxoñ kooku mooy gagné élection yi dès le premier tour. Ah, xam nga soxna Fatima. Mhm. sànq ci njëlbeen wax naa la. parce que élection bi wax naa ci urne wax naa la tëddaayu. yéen ay sondage rek ci ay eh, sondage gis ngeen basé wu. dama ni déedéet eh, dañuy dugg nag ci askan bi dañu def terrain gis nga bu may préparer sama parrainage. Mm. dugg naa nekk. gis ngeen ko sax parce que dama koy biral souvent. Mm-hmm. sama page Facebook. Mm-hmm. dugg mm-hmm. nañu fu nekk. te li ñu gis benn kese la moo di doyal nañu. ci nguur gi doyal nañu ci nguur gi nag ñun du loolu sax la ñu bëggoon de euh, am ëpp na at li ñu yaakaaroon moo di su président newoon teel ko du nekk candidat nit ñi danañu waxtaan ci profilu candidat yi waxtaan ci programme yi mm-hmm. ñu bañ a nekk ni ñu voté woon en deux mille deux mille moo doon folli mm-hmm. Abdou Diouf ci la Ablaye Wade folo 2012 moo doon fol folli Ablaye Wade ci la Ablaye Wade folo wante Macky kisal ak jëfinam mooy bundu xataal nit ñi muy eh, institution yi joxatu leen joxatu leen cër bi war ci ñoom ak yooyu yëpp tax na tey sénégalais yu baree bare dañu mer mm-hmm. dañu mer boole aussi seen dundin seen dundin parce que yow réere woo mbir ni tey fii ci ndakaaru gi ñu nekk nii am na ay kër yu bare suba si du ñu ndekki mhm. ngoon bi du ñu reer mhm. te gis nañu aussi borom alal yi ni ñuy doxalee ci réew mi mhm. donc xaalis bi su réew mi donc loolu yëpp naq dina nit ñi ak gis surtout jaay doole bi ak kumba am ndey ak kumba amul ndey bi nga xam ne nguur gi moom lay tëral moo tax dañu dellu si ci élection 2000 ak élection 2012 mooy fol yi folli képp nag ku taq ci Macky Sall da da ngay risque ñu folli la te loolu moo gën a tax ma ni la nguur gi dafa meree trop trop trop conseil constitutionnel ndax li nga xam ni may nañu ci côté nguur gi ku mel na bun Abdallah nekk candidat hmm. ku mel na Aly Ngouille nekk candidat ku mel na Mame Boye nekk candidat même su fekkee Aly sax day wax ni moom euh, nekkul ci nguur gi hmm. dégg nga ku nekk aussi jox ko ci dëgg-dëgg moom nee nekkul ci nguur gi mais yàggul bu mu fa jógee donc am na électorat nguur gi boo xam ne dana dem ci moom. te loolu yëpp day wàññi doole candidat bi nga xam ne mooy candidat Macky Sall te soo seetee kàngam yu bare yu nekk APR dañu lay wax ni ànduma ci kooku dañ koy gis ci terrain bi dañ lay wax ànduma ci. Mm-hmm. donc loolu néewal na doole ki nga xam ne mooy candidat APR ndax ay ñoñam ni mu bokkal mun na wax ay doomu baayam ay doomu ndeyam ñoo koy xeex. ci biir coalition ci ci biir euh, kiyam. partem euh, ñoo ko fay xeex. donc loolu tax na bi ma ni déjà électorat Benno wàññeeku woon na trop trop trop ci législative yi te boobu ak léegi. dafa gën a wàññeeku rek yokkuwul. moo tax te électorat euh, Ousmane sonk moom dafa yokk dafa yokk gis nañ ko. Euh, nguur gi def na ay sondage bu mu defee ay sondage gis ngeen fii sax yenn saa yi euh, président yenn saa yi am yu ko dal yoo xam ni que daaw ko dal. xam nga bu mu demee Kaffrine dama seetaan bu muy bu muy waxtaan muy xas ay ñoñam yi. ni leen di man kat def naa lii def naa lii yéen mënul leen sax taxaw di ko défendre <laughs> far yenn saa am nga soo soo xawee mer. Mhm. yenn sax yi nga saaraan nga wax dara. Mhm. loo xam ne buggoo ko woon wax. tu vois ci la waxoon affaire u euh, Atepa bi te mu indi coow donc tey nguur gi taxawul taxawul xam nañu ni élection fu ñu dem dañ koy ñàkk te li gën a bon. mooy ñàkk ko nga nekk nguur ba pare. nga ñàkk ko au premier tour. d'accord d'accord ñu desandi ba tey ci ci ci question yi aussi dellu